tey fi ñëwoon tey en tant que les populations de la zone de recasement et quartier environnant ñi nga xamante ni ñoo nekk diggante Kër Massar zone de recasement montagne Malika wàcc jëm m tey dañu ñëw uniquement pour dafa am loo xamante ni depuis des jours yu nekk ci ginnaaw ñoo ngi koy dégg ci conseil municipal bi nga xamante ni moo nekk Malika ñoo ngi ñuy wax ni dañoo bëgg la limite de Malika commencer ci kaw montagne bi dem ba M3 romb zone de recasement romb magasin romb quartier yi nga xamante ni ñoo nekk ci limite bi ñu ne nag ñun en tant que ay jeunes ànd ak suñu kilifa yi nous ne sommes pas du tout d' accord d' accord ñu parce que lu tax Malika la loi 96 dafa délimité woon Malika ak Kër Massar fan mooy ci montagne bi la ñu yem tey bu ñu demee ba ne nag du ñu ñëw ci département Kër Massar parce que. tant que joxuñu leen seen limite ba M3 duñu ñëw loolu ñoom la concerné ñun en tant que le mouvement jug jot na ànd ak suñu kilifa yi ànd ak délégué ak imam yi ñoo ngi taxaw na duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg Kër Massar la ñu dëkk Kër Massar la ñu xam Kër Massar la ñu nekk fa la ñuy voté fa la ñuy defaree suñu kayitu doom yi fa la ñuy defee suñu kayitu mariage yi kon tey waa Malika bu ñu waxee dañoo wax lu leen neex loo xamante ni loolu moom moo leen di arrangé mais ñun ce qui nous mooy que nous restons à Kër Massar je pense que tey li ñu mën a wax mooy que dañuy lancer un appel aux autorités étatiques ku ci mel le président Macky Sall ministre des collectivités territoriales monsieur Omar Gueye et que ni tey délimitation bi découpage bi arrangé na Kër Massar baax na mais nag ñun li ñu bëgg ñun en tant que des habitants de Kër Massar ñu bàyyil ñu sunu zone yi nga xamante ni mooy zone de recasement ak quartier yu ko wër wasalaam. Lanaat ñëwoon na fi délimité na la Malika ak Kër Massa kon jeex na kon bu fekkee tey waa Malika dañoo jógaatee ne dañoo soxla ah, zone bi pour ñu gën a yokk seen seen territoire ñun waa zone de recasement duñ ko d'accord a quartier yu ko wër. Lanaat zone de recasement bi li mu soxla mooy ñu ngi euh, def ay ay canalisation mais zone de recasement amul ay bassin soxla na ay bassin yu ngande yoo xam ne bu ndox mi ñëwee du leen sonal parce que ndoxu Kër Massar yëpp ci bassin yu euh, xërëb kër bi lañ koy indi te xërëb kër moom moo euh, moom moo boot euh, zone de recasement 1 2 3 quartier Samba Dem quartier fallu seen ak quartier yi ci des yëpp. kon foofu war nañu am benn bassin bu mag boo xam ne du leen sonal loolu lu ñu yàkkamti la parce que nawet baa ngi ñëw bu dul loolu am na ñoo xam ne seen kër yi danañ ko génn te président bi bi mu fiy ñëw di waxaale département bi. ci inondation la fi woon muy daaw waxaale ci lii te comme ay diggéem mu ngi koy def ñun tamit li ñuy ñaan mooy suñu bassin bi mu tab ñu defaral ñu bassin bu mag boo xam ne bu ndox mi ñëwee dem fa leneen li mooy bëgg nañu Camp Sapeur ñun dañoo jege décharge bi fu ñu toll nii bu ñu soxla woon bu fi dara xeewoon yàlla tere ñun amuñu fenn fu ñu koy jooytu wala kenn ku ñuy sauver kon am nañ espace nag fii ci zone de recasement bi am nañ fi boo xam ne mën nañ fi def Camp Sapeur Kër amul Camp Sapeur mën nañ ko fi def mairie commune bi am nañ espace soxla nañu ko defal nañu nag police bi defar nañu ko ñu ngi ci am yaakaar ni dina teel a pare ñu équiper ko parce que nag ci danger la ñu ne ku jege décharge bi xam ni yow nekkoo si nekkoo si jàmm comme nag ñu ngi nekk département doole ji léegi des na Kër Massar kilifa yi nekk Kër Massar aussi bu ñu leen joxee doole yi nga xam ne population bi ñu sonn ñi ñun ñi nga xam ne ñoo jege décharge bi kenn gënuñoo sonn ñun dañoo dee ba pare ay cadavre ambulant lañ dañuy dox rek dañuy dox nii rek waaye dee nañu ba pare waaye ñu ngi muñ loolu di xaar bis bu rafet bis bu rafet bi nag mooy Macky Sall nee nañu dañuy def département département bi nag ak li koy accompagner li koy accompagner aussi ñu bañ ko détourner ne fii la jëm wala ku nekk di ko yóbbu sa boor ñun li ñu soxla mooy li nga xam ne loolu la ñu wax ñu defal ñu ko waaw. li ñuy waxtaane rek mooy li xale yi wax rek ak délégué de bi li mu wax. day nag foog jigeen wax ci waaye li ñu war a wax yëpp xam nga ñoom wax nañ ko ba pare ndax euh, Kër Massar bu ñu ko defee département ñun zone de recasement 2 ak 3 ak quartier yu ñu wër yëpp su waa Malika bëggee jël quartier yooyu yëpp taf ko ci ñoom day metti parce que ñun daanaka nag ñooy Kër Massar te ñun bu ñu fi dëkkee ba léegi bu ñu amee doom mairie Kër Massar la ñuy dem déclaré ko fa carte kii ak kii mariage yi boo demee Kër Massar la ñuy dem lépp lu ñuy def Kër Massar lañ koy defee kon nag bu ñu xëyee tey tey bu ñu département def nañ ko Kër Massar ñu waa Malika bëgg ñoo jël taf ci seen bopp ñu koy dégg nag amaguñ ci lu ñu leer waaye ñoom ñu ngi koy romandaat ci suuf kon nag bu ñu nee patt mel ni ku ko déggul day mel ni affaire bi safuñu te nag jamono ji nag boo yuuxuwul kenn du la dégg moo tax nag ñu bëgg a wax suñu doléance balaa dara xew. ñun daal bëgguñoo dem Malika tey bëgguñu dem Malika ëllëg Kër Massar la ñu bokk Kër Massar la ñu bokk Kër Massar la ñu bokk Kër Massar la ñu bëgg a des nañ ñu bàyyi Kër Massar ñu tafu ca Kër Massar ñun zone de recasement ëlëg ak si biir macha allah li ñu bëgg yàlla defal ñu ko parce que ñun am nañ fi sud boo xam ni pour hôpital la ba léegi sud baa ngi fi am nañ fi sud boo xam ni pour marché la ba léegi mi ngi fi bu ko dee bu ñu defee département nag ñu tafu ci Kër masaar bu ko dee bu ñu jàppalee dimbali ñu tabaxal ñu suñu marché boobu tabaxal ñu suñu hôpital boobu affaire bi day gën a neex rek jëm sa kanam. voilà donc je remercie tout le monde euh, de leur présence aujourd'hui pour euh, effectivement euh, euh manifester notre engagement à véritablement vouloir préserver l'unité territoriale parce que nous avons appris par le biais euh, effectivement du conseil municipal de Malika, qu'il serait préférable de découper par exemple euh, la zone en accompagnant effectivement la zone de recasement, les quartiers Kherepker, zone de recasement 1, 2, 3, euh, et aussi les quartiers environnants au niveau par exemple de Malika. Moi je dis fermement nous sommes sans embâge. Nous sommes contre ce processus de découpage. Nous véritablement invitons les autorités à euh, acter ce que la loi 1996 avait déjà dit, que effectivement ce découpage-là, c'est tout juste après euh, euh, la décharge de Mbebes, c'est euh, Malika Et une fois effectivement descendu au niveau de la décharge, c'est Malika. Je pense bien que nous, nous, nous, sommes fermes sur cette position. Et là, Kermessar, euh, ou bien la, la, zone de recasement de Kermessar, regorge de potentialités qui nous permettent effectivement d'avoir une certaine quand même, euh, euh, bon, dans cette recomposition territoriale, une certaine indépendance. Parce que ici, nous avons effectivement euh, euh, la police. Bon, nous avons euh, l'église pour euh, les chrétiens, nous avons aussi des mosquées, nous avons des, des, établissements, des écoles, des établissements de formation. Nous devons avoir aussi euh, bon, un poste de santé qu'on peut ériger en même hôpital de niveau 1 parce que l'espace est la dédié. Et je pense bien avec euh, l'espace maritime aussi, on pourra avoir véritablement euh, bon, un espace où on pourra développer beaucoup de choses. Sapeurs-pompiers, bon, euh, et beaucoup d'autres infrastructures. Donc sur ce, nous disons non et non pour effectivement ce découpage qui a été prôné par euh, bon, le conseil municipal. Et en tant que conseil municipal, je porte le combat pour dire effectivement que nous n'accepterons pas le principe parce que le conseil municipal de Kermassar a validé le processus qu'on magnifie intégralement parce que ça a été une vieille revendication du président de la République qui nous a promis ça à deux reprises lors de l'inauguration de, du CM de Kermessar Village et aussi lors de sa visite, euh, de, euh, lors de sa visite euh, pendant euh, l'inondation au niveau de Kermassar. Toutes ces régions font que véritablement nous, nous magnifions cela pour que le département puisse s'appeler Kermassar, pour que le chef lieu de département aussi euh, puisse s'appeler Kermassar. Euh, même aussi, là, ils ont essayé de couper là poire en deux parce qu'ils ont même dit que l'arrondissement va s'appeler euh, Malik. Mais nous, c'est salutaire. Mais tout ce que nous n'accepterons pas, c'est que de prendre la zone de Kermassar, la zone de recasement, 1, 2, 3, quartier Kherepker, Mtowa, Unité 10, tout ça, l'étoffer, euh, n'est-ce pas, au niveau du, de Malek, c'est ce que nous n'accepterons pas. Bon, moi je parle en tant que qu'habitant de la zone. Je fais partie des trois conseillers municipaux qui sont là. Je suis avec les délégués de quartier, tous les délégués de quartier. Je suis avec les notables, je suis avec les femmes, les Badjanogor. Je suis avec les jeunes qui ont porté ce combat et que je magnifie parce que voilà, c'est ça. Les jeunes doivent être vraiment au cœur de la transformation de notre territoire, je pense bien qu'on a salué leur engagement. Voilà.